sëriñ bi euh, yal na yàlla yokk leeram moom ki nga xam ne mooy fondateur yi lépp fii ci Medinatu Cheikh Abdou Khadir Jilaani ñu dippee ko maamam euh, ku déglu ci ay kàddu sëriñ bi danga nga faral di dégg mu ne man de jeexal na lépp lu ma leen waroon a wax wax naa leen ko lépp lu ma leen waroon a won won na len ko lepp luma lay won wona xamal xamal naa ko xamal na len ko bind na bàyyil leen jiitu ngeen and ak man def lepp matna na na bayina li tam itam bàyyee itam ak Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim bu ma len baye xam naa ne xam ngeen fi ngeen jëm kon li ci dess rek moy bes bu rafet yegg ngeen wéy continuer ci lima len baye won motax Medinatu Cheikh Abdou Khadir jilani moom ak gàmmoo Cheikh Mouhidine amul ixtilaaf amul wuute ndax tëraloon nañu yoon bi xamaloon nañu niñ koy defee joxoon nañ itam heure yi ñu koy def ak anam biñ koy defee kon gannaawam dara soppeekuwul li soppeeku daal mooy wéttal gi ñu doon wéttil wéttali doon ñu keral loolu moom la ñuy nammante ko ba tey mais lim ñu bàyyee woon ba tey dara changé wu ci li leer moo ne commencement jàng alquran ndax mooy fondation bi suñu paree am na ay bernde yoo xam ne cheikh bi daf ko doon jël doon ko jox dawaa dawaayir yi boobu daayira yi ñu ngi toll ci soixante-dix daayira léegi dem nañ ba daayira yi ëpp nañ cent te loola mu doon joxe itam incha allah ba tey dinañ continuer di ko joxe nam ko doon defee noonu lañ koy defee suñ ko yokkul kay waaye daara dootuñ wàññeeku au contraire suñu xoolee sax sëriñ bi li mu doon def benn puus na léegi ba ñett lañ koy def heure yi nga xam ne itam ci la doon génni ngir ñëw ci gàmmu gi heure boobu itam la ñuy génn ba tey nam doon gàmmoo itam xaala laaw xaala rasul noonu la ñuy gàmmooyee ba tey kon benn ixtilaaf amu ci benn wuute amu ci benn contradictoire amu ci waaye dëkk bi yàlla def ko ñag am na ñëpp ñoo xam ne ay mbindeef yàlla la ñu fi dëkk ku yàgg a ñëw Medinatu Jilaani li ma lay wax nii seede nga ko mbindeef yoo xam ne désordre rek la ñuy xaar heure bu désordre du amee rek ñu wane seen bopp bëri na bu ñu ko defee ci jamono sëriñ bi ku ci dégg am na benn jour bu ma leen waxee na sax ku ci moytuwul fontu ñu sànni la ci géej gi nga naan ci ndox mi parce que duñu liggéey ba heure bii ñu di ko yàq am na ñoo xam ne ci dëkk bi la ñu dëkk mbindeef yàlla yi du ñu bëri ñoo leen di tëg bët ñu ngi dëkk ak ñun jàmm rek nag la ñu bëgg waaye njubit la ñu bëgg lu baax it la ñu bëgg waaye keneen koo xam ne ñëw na fi dox leneen lu dul li liñ fi woote lépp loo mën di gis sooy nga jëb ak moom